yaa ko wax ne oh. da nga dugg nuyoo mais jàll biir géejawaay ak li am euh, instant yi waaw euh, boo nee géejawaay sa xel dina dem ci ah. wala Pikine moo jur géejawaay waaw euh, ñu dégg fa benn information boo am ci actualité wax ne Pape Sarr dem ci ah waaw you know you know you know you know you know sunu naataango la mm-hmm. li ko dal metti na metti na ma trop damay toog di ko déglu image yi affaire bi daf may touché daf tellement choqué tellement choqué tellement choqué ndax Pape Sarr amul lu dul Pikine man ni may défendre couleur Guédiawaye moom noonu lay défendre couleur Guédiawaye euh, couleur Pikine man ni may défendre couleur Guédiawaye moom noonu lay défendre couleur Pikine ndax Pikine la am Pikine la dëkk man Guédiawaye la am Guédiawaye laa dëkk man kenn du laal doomu Guédiawaye ku ko laal laal ma Pape Sarr ba tay wax na ma fi lu tay lu nekk séqantan ko waaye lu lépp mi ngi nekk ci kaf ak ree ndax ku nekk sa couleur dëkk ngay défendre bi ma déggee cas bi yoon da ko teg loxo ci li amoon kon nag war nañu seetaat sunu bopp war nañu seetaat réew mi ndax tey Pape Sarr lan la jóg di wax suñu kilifa diine yi ñu jóg di leen wax wax yu ñaaw wax yu tegg ne mu jóg di défendre loolu di xeex loolu su dee loolu lañ ko jàppee ah kon war nañu seetaat suñu bopp kon war nañ jógaat war nañ seetaat suñu bopp lu mel ni suñu kilifa diine nit ñi di ay wax yu ñaaw wax yu ñaaw Pape Sarr jóg di xeex loolu di défendre loolu ñu téye ko ci loolu kon war nañu seetaat suñu bopp ñun war nañu seetaat suñu bopp te xam suñu bopp xam ñooy kan ah Pape Sarr amul lu muy Pikine Pikine la am Pikine la défendre maa ngi ñaan waa pikin Pape Sarr doomu pikin la ña fa nekk yëpp Pape Sarr yi mun naa ñoom ñëpp seen Pape Sarr seen tey su lii amee Pikine gépp dañoo war a génn mobiliser génn xeex mars ndax ñu bàyyi seen doom ndax Pape Sarr icône pikin la man soxoruma iñaanuma jàpp bi ko jàpp dafa maa metti ca hunta ca hunta daf ma metti you know daf ma metti daf ma metti ngay ñaan autorité dama bëgg autorité yëpp ñu génn ñu wax ci ñu jàppale ñu bàyyi ko nan ko jàppale ñu bàyyi ko ndax lool du dëgg du yoon ndax suñu kilifa diine yi nit ñi fi nekk di leen wax waxu ñu ñaaw ñu téye ci Pape Sarr dañ ko war a bàyyi dañ ko war a bàyyi mu àggale mission am dañ ko war a bàyyi man génn way laa ama ah. Géejawaay laa dëkk couleur Géejawaay laay défendre moom ni muy défendre Pikine man noonu laay défendre rek Géejawaay téye ko téye dafa ñaaw dafa am soxna am njaboot nan ko bàyyi te lu rafet la ci jublu woon ñun amuñu lu suñu kilifa diini suñu kilifa diini ku la laal ñu laal la ku leen laal ñu laal la kon nag su dee loolu la ko te nan ko bàyyi Pikine gépp dañoo war a génn axlu làmb sax laay wax ñëpp a génn war ko défendre ñëpp a génn war a génn war ko défendre ndax amul Pikine la dëkk waa Pikine nag moom ñoom tubaarikàlla macha allah ñoom amuñu lu dul Pape Sarr Pape Sarr amul lu dul Pikine muy mbër ak autorité ku mënta doon dañoo war a génn wane seen bopp ñu bàyyi seen doom ñu bàyyi seen doom ndax téye bi ñu téye Pape Sarr neexuma metti na ma man ba ma ko déggee dama am lu ma metti dama am lu ma metti d'accord bokkuñu gox tey su Balla Gaye war a bëree ak Eumeu Sène lu leen neexu dégg amul problème c'est normal ndax ku nekk fa nga am nga am ah, ngay défendre waaye jàpp bi ko jàpp daal ma neexuma dañ koo war a bàyyi.